2022 si def programme de développement communal pour mën a xool li nga xamante ni mooy jafe-jafe dëkk bi ñu mën ci indi ay saafara ci loolu it xayma woon nañu ba gis ni dëkk bi jafe-jafe yi ci gën a tar bokk na ci muy finance locale ndax dëkk bi amoon na ay bor yu tolloo 302 millions lii mu amel ko ADM lii am lii amal ko AGETIP lii mu amel ko trésor mu li naan déficit au niveau du trésor ñu liggéey ci ba fay bor yooyu fii may wax yenn ci compte mairie de Mbacké ci trésor public boo demee dem fekk am nañu benn épargne bi 408 millions li waral loolu mooy dëkk mënoo ko defar te wutuloo xaalis xaalis boobu it am na ay instrument financier yoo xamante ni nguuru Sénégal moo ko teg te état du gouvernement état mooy administration ak gouvernement mais gouvernement yi dañuy changer dañuy dem mais administration yi dafiy des ñoom ñooy yore les planifications ñooy yore les programmes et les projets beneen bi ci toppit teg nañu ay stratégie pour wàññi dépense yi nga xamante ni commune daf doon dépense muy fonctionnement bi wàññi ko bu baax a baax itamit ñu fexe ba renverser la tendance c'est-à-dire jël 75 pour cent ci xaalis yi ñi am jëmale ko ci li nga xam mooy investissement jël 25 pour cent yi mu jëm ci fonctionnement loolu li ko war rek mooy ñun suñu objectif lenn la mooy ñu tabaxaan Mbacké defaraat Mbàkke parce que Mbàkke situation bi dafa métti ci loolu ñu gis ne buñ ñu ci programme de redressement boobu dañuy jëm ci li nga xamante ni mooy wér-gu-yaram wér-gu-yaram boobu ñu teg ko ci benn programme bu requalification territoriale requalification teritoriale boobu mooy quartier yi nga xam ne mooy les quartiers périphériques te yàlla dogal sóoraale wuñu leen woon ci dara ñun ñu ne nañ ci wane sul ñu jël lu mel ni quartier sancaan yi te léegi conseil municipal sax jël na décision waxtaan ci ak kilifa yi nga xamante ni mais kilifa yi daaru salaam ñu jël sanc yi rattaché ko ci daaru salaam nga xam léegi doonatul sanc yi mais dafa tudd léegi daaru salaam 1 daaru salaam 2 daaru salaam 3 ak daaru rahman tabaxal leen poste de santé équipé ko rendre ko opérationnel lotissé marché jox ko commerçant yi indi fa ndox ndax dañu ko indi neuf bornes fontaine dans un printemps en 2014 pour permettre leen ñu am ndox ren ci lañ yokkaat fa extension bu am solo ba carte yëpp am ndox bien vrai que danañ leen dolli ndax am na programme bu nekk en lancé nañ ko ba am na société bu ko gagné donc on a commencé les travaux donc incha allah dès la semaine prochaine bu ñu defal avant que démarrage mu démarré ndax liggéey bi euh, ñu nga ne 36 millions yoo xam ne extension addiction d'eau la te sancaan ci amal lu am solo ñu yóbbu leen courant courant boo bien vrai que mën nañu wax ne moitié bi am nañu mais am na poche yu des programme nañu actuellement ni eh, bu avance de démarrage bi jotee rek à partir de la semaine prochaine automatiquement dañu comment danañ mën a continuer liggéey boobu 9 cinq cent yoo xamante ni dañ koy yokkaat ci périphérie dëkk ndax ñu ko fas yéene def ci quartier Santhiane yi ñu ko def élevage Diamaguène 1 Diamaguène 2 danañ renforcer Guy Dakar ak Ndiayène danañ renforcer Mbacké Démboul Njakal ak Bari danañ renforcer aussi Paleen ba Ngàcci Fall dañuy renforcer Daaru Salaam aussi ci côté sud bi ak ci côté noonu loolu muy des programmes yoo xamante dafa am solo pour euh, périphérie dëkk ndox mi 16 kilomètres yooyu ñu prévoir aussi préfet périphérie dëkk bi ak yenn poche yi nga xam ne am na lu mel ne yaaween ak euh, afe ak euh, mbakki dimb ak euh, benn partie ci jàmm gën ak élevage wante aussi benn partie ci njakalak loolu dana permettre population yi ñu gën a am accès à l'eau et à ci côté santé bi toujours tabax nañu benn poste de santé Paleen tuddee ko suñu maam Seynabou Ndiaye avec tous les équipes tabax nañ benn poste de santé fii ci Ndiayène le médecin chef de district moo wax ne bu logement ICP bi parewul kenn ko ubbi commencé nañ travaux logement ICP bi jàpp nañ ne d'ici le mois de mars avril dina pare ñu mën ko ubbi ndax déjà équipement yi pare na ñu au niveau de la municipalité ci loolu noonu la ñu accompagner le poste de santé de Gawane jox leen une ambulance médicalisée ak aussi ay benn échographie pour permettre leen seen plateau de ñu mën ko relever mais aussi di jël en charge yenn jigéen ñi nekk ci jafe-jafe ak maladie yi xam en urgence ci toujours ci santé bi ñu ñëwee poste de santé yi 360 000 lañ daan am dotation ñu yóbbu ko à 1 million te pare nañu pour yokkaat ko. yóbbu ko à un million cinq cent ci loolu ñi tabax pare na benn imagerie médicale boo xamante ni une rajo numérique lañ koy installé rajo bi 40 millions lañ ko actuellement mi ngi Dakar jàppoon nañu sax danañ ko réceptionné bien avant élection yi mais liggéey bi da nga mu taxaw day wéy donc bu ñëwee rek dès la semaine prochaine ñu installé ko inauguré ko jébbal ko askan wi daal di continuer ci année 2022 bi continuer continuité projet bi mooy tabax bloc opératoire boo xamante ni dafay am salle de préparation salle de réveil ak salle de réanimation loolu programme ci 2022 bi l' argent est disponible audi xaalis bi disponible na mi ngi trésor incha allah bi euh, dès la semaine prochaine li yàlla dimbalee bu ñu jógee ci xat-xat yi danañu mën a procéder ci li nga xamante ni mooy lancé appel d'offre na xaalis la bu ñu kale ndax mooy 408 million yi ñu ci prévoir cent millions yi dañ ko bëgg a injecté waat ci marché bi pour liggéey phase 2 wu marché de Mbacké deux places publiques yi ñu prévoir en 2021 dañ lancé ko ba pare donc élection yi yegg si ñuy joxe avant démarrage boobu dañ koy liggéey ak deux yi prévoir prévoir 2022 yëpp seen xaalis disponible la ci 408 millions yi la bokk bloc opératoire bi ci la bokk ak beneen programme aussi ay lampadaires yu ñu commandé yoo xam ne am nañu un projet de 1500 lampadaires ñoom déjà 100 moo jot a ñëw en guise d' exploration ñu yoon ko askan wi est ce que bëgg nañ ko te bu ñu installé 100 yi tas ko ci quartier gis nañ ne nit ñi bëgg nañ ko apprécié nañ kon validé nañ ko pour 1500 lampadaires yooyu mën a ñëw. ñu koo dugal ci li nga xamante ni mooy mooy dëkk mais ci biir euh, liggéey bi bi ñu tàmbali liggéey ba planifier li nga xamante ni mooy élection yi ci la sunu mbokk suñu premier adjoint Mor Sow am ay jafe-jafe Mor mën nañ nag c'est l'absent le plus présent ci campagne ndax liggéey yu bari ci wàllu politique bi lu ci ëpp moom laa ko confié woon ma ko doxal donc muy jigéen ñi muy jeunes yi muy collaborateurs yi muy les nouveaux entrants ñi door a ñëw bokk si ñoom ñëpp moo doon coordonné loolu ñu téye ko yoon teg ko mbiru yoon la mbiru justice la mais li ma xam rek mooy dara sax te lu waay def da ngay wéet ak sa bàmmeel jàkkaarloo sa borom ñoo commenté laa ci dem rajo lay waxe ñu ma war a dégg ñu ngi may dégg mais ñu xam na rek lu waay def da wéet ak sa borom sa bàmmeel te yow di yàppee ci liggéey bi côté santé perspective yi am na solo ndax jël nañu décision ci biir programme bi nga xamante ni koy lancé pour 2022 2027 li nga xamante ni mooy sëriñ daara yi da ngeen a teel a intégré ci seen programme bi nga xam moo jëm ci wàllu jàng ak jàngale depuis 2014 lañ commencé chaque année ñu insérer sëriñ daara yi benn insérer benn rubrique ci budget bi pour jàppale leen pour ñu mën a créer benn journée ci biir weeru koor wi pour mën a jàppalante waxtaan xam ne ñoom ci njàng mi ak njàngale lañ bokk évolué na nag entre temps jàppale nañ leen ba lu mel ni ay édicule publique ay toilettes am na suñ daara yu bari yoo xam ne jot nañu ko def programme bi nga xamante moom lañu bëgg a continuer ci deux mille vingt deux deux mille vingt sept bi bëgg nañ léegi chaque année ñu choisir dix ba quinze daara alquran defal ay mbaar mbaar yu baax yoo xamante dongo yi dinañ ci mën a toog di jàng ci sécurité te it bu ñu gënee évoluer danañ xool yi leneen lu ñu leen war a mën a dollil lu jëm rek ay toilettes ak leneen commencé woon nañ aussi cibler ay daara dugal leen ci audience foraine yi xale yi pour ñu mën a am ay kayitu juddu ndax xale yi ni ñuy protéger xale yi nga xamante ni dañu jàng école nasaraan am ay avantage ci école yu baax ak ay jàngalekat yoo xam leen di fay am kayitu juddu ñu ne nañ ci liggéey loolu dénkoon naa fa premier adjoint ba jàppal ne daara yu baree baree baree bare ba am nañu ay kayitu juddu ci daara yi ba tey bokk na ci programme deux mille euh, vingt deux deux mille que li nga xamante ni moo jëm ci couverture maladie universelle am na ay sëriñ daara ñi ñu jotee ciblé waxtaan nañ ci ak ñoom ba bëgg nañu commencé au moins ak juróomi daara jël en charge ay dongo daara ci li nga xamante ni mooy maladie couverture maladie universelle ci biir CMU lépp ci wàllu santé ci biir CMU bi aussi prévoir nañ ci li nga xamante ni mooy regroupement ñi nga xam ne mooy bàyyi peel yi ndax seet si nañ ma waxtaan nañ seeti naa leen waxtaan naa ak ñoom ci li nga xamante mooy seen jafe-jafe ndax xam ku ci tawat rek war sa njaboot tawat da ngay am jafe-jafe pour faju ba dañ lay dajaleen pour nga faju moo tax ci loolu ñu ne dañ jël ñaari couche yooyu jàppale leen pour ñu insérer ci li nga xamante ni mooy couverture maladie universelle ci wàllu njàng ak jàngale ginnaaw bi nga xamante ni réhabilité nañ école Maam Cheikh Anta Daaru Salaam école bi nga xam mooy école Maam Cheikh Ibrahima Fall réhabilité école Cheikh Omar Diop réhabilité école ma sàmba réhabilité aussi école Mame Mor Diarra Mbacké informatisé nañ toutes les écoles yi nga xamante ni moo nekk ci suñu juridiction ci commune ubbi tey jàng tey avant état bi di ko appliquer ñun fekk nañu koy appliquer donc fourniture yi dina ñëw ci école yi bien avant ñun jënd nañu benn risographie bu am capital bu am euh, capacité de mille 000 copies par jour installé au niveau de l'IEF pour que jàngalekat yi ak directeur d'école yi seen examen yi ak seen euh, composition yi ñu am possibilité man ko def tirage yi au niveau de l'IEF bi ñu tegee risographie bi dañ cee boole 1500 rames de papier pour mu mën leen couvrir durant toute l'année ci cadre boobu ba tey bépp dépense wala dépp organisation boo xam jëm na ci jàng ak jàngale commune de Mbacké ñu ci accompagner IEF bi mën na sa cee wax Covid bi ci Covid bi bi bi nga xamante ni mesures yi dal na ci kaw askan wi li ñu njëkk def mooy déggoo ak le préfet de Mbacké bi fi nekkoon comité départemental bi li ñu soxla woon mairie de Mbacké yëkkati ko teg ko ci seen loxo pour démarrer noonu nag lañu accompagner école yëpp ci ay masques ci ay lave-mains ak lépp loo xamante ni kit sanitaire bi nga xamante ni moom la IEF demandé woon fexe woon nañu ba école yëpp am bi ñu def examen it bi nga xam ne informé nañ ñu ñu xam ne segam élèves yëpp suñu ay doom lañu suñu dëkk lañu nekk ci lañu jël quinze mille cinq cent cinquante masques jox IEF ak quarante larmes quarante thermoflash du savon jox ko IEF pour ñu ko ci lycée yi ak collège yi ak école primaire yi pour élèves yi. ma def examen dans les meilleures conditions loolu liggéey nañ ko ci éducation tey xam nga liggéey bi dafa dynamique day continuer taxaw ñu gis ne élèves bi ñu jàng mais am nañu jafe-jafe ci wàllu livre moo tax mairie de Mbacké tabax benn complexe communal de la jeunesse dégg ko le professeur Assane Ndiaye mais ci biir complexe communal de la jeunesse bi am na une bibliothèque municipale bu ci def tudde ko professeur Alhaji Ñaamusi bibliothèque municipale boobu njariñam mooy programme préscolaire xale yi nekk école primaire maternelle ba ñuy dem primaire ba kenn ñoom doctorat livre yi ñuy soxla day nekk ci biir bibliothèque mais innovation bi ci am mooy livre bépp mu doon boo xamante ni am nga ko ci version physique xam na koy jël téye ko nii da ngay am version numérique loolu nag pour ñu mën koo appliquer liggéey bi pare na mooy chaque école day am plateforme boo xam ne livre yi nekk ci programme am dañ ko ciy ay code d'accès yoo dañuy accéder rek jël livre bi liñ ci soxla partagé ko ak élèves ndax gis nañ ne classe yëpp rek am nañ groupe WhatsApp bu professeur bi jëlee livre bi ci ci plateforme bi télécharge ko sedd ko groupe whatsapp bi dana permettre xale bi ci téléphone am wala téléphone yaayam wala téléphone papaam mu am ci li nga xamante ni mooy chapitre bi mu war a semaine bii di ñëw avec explication yi nga xamante ni moom la ci professeur bi doon loolu dafay permettre xale yi nekk à jour par rapport ak si àddina bi toll ndax boo occupé xale yi jox leen ci seen téléphone yi yoo xam ne dañ koy moom lañuy jàngi dañu obligé di ko utiliser à d'autres fins yëpp ci innovation njàng mi la ak njàngale ci loolu ñuy ñuy piloté benn projet bu am solo boo xamante ni euh, ñette ko seet muy KFW muy état du Sénégal ak KFW ak la commune de Mbacké KFW financé na commune de Mbacké un grand projet via le ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation muy benn ISEP ndax ISEP yi état bi day teg def ay proposition partenaire technique financier yi xool ku ci nekk ban zone moo la gën a intéressé ban zone nga mën a financé ban zone nga mën a jàpp mais particularité Mbàkke mooy Mbàkke dafa matière c'est-à-dire Touba day dëkk bu mag nekk deuxième ville commerciale du Sénégal c'est-à-dire quand on parle de primatialité mooy ñaareelu dëkk bi nga xamante ni moo ëpp dayoo ci wàllu superficie wante aussi ci wàllu doomu aadama yi fi dundee wala aussi ci wàllu koom-koom yi participe ci réew mi loolu nag moo tax Touba am na yenn euh, infrastructure wala yenn école de formation wala yenn yoo xam amu fa loolu tax Mbàkke euh, boo xoolee ñun élèves yi jàng si Mbàkke élèves yi nekk Mbàkke 80 pour cent yi Tuuba la ñu loolu aussi ñu ni koy gérer depuis ñu fi nekk te xàmmewuñu élève bu Mbàkke élève bu Tuuba li ko waral mooy Tuuba ak Mbàkke ñaari commune lañ mais benn communauté la te lépp ci kilifteef Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul nekk loolu tax ñu ngi liggéey ci l'intercommunalité entre Touba et Mbacké conseil municipal bi voté na ba d'accord ci intercommunalité bi conseil municipal bu Touba d'accord na ci waxtaan na ak le maire sëñ Abdoulahat donc bu ñu jógee ci yi dañuy procéder ci li nga xamante ni mooy l'intercommission ñaari commission yi daje ci wàllu njàng mi ak njàngale mi Touba li mu war a participer mu koy participer Mbacké li mu war a participer mu koy participer ñu boole ko mu doon benn pour que élèves yi mën a jël en charge ci biir participation bi déjà rek am na en vue un projet bu am solo de transport scolaire boo xamante ne Touba ak Mbacké ñoo koy seet pour mën di transporter xale yi. ci condition yi nga xamante moo gën toujours ci wàllu éducation bi euh, perspective yi yaatu na yaatu na loolu d'ailleurs euh, ci biir euh, complexe communal de la jeunesse bi prévoir nañ ci ay rencontre yoo xamante ni mensuel lay doon donc commune bi dafay jël ay programme bokk na ci programme bi ku mel ne Maam Mor Jaara Mbàkke élèves wane ko xam ñun élèves yi war nañ ko xam ñu bëgg dénk enseignants yi nga xamante ni dañuy jàngale école Mame Cheikh Anta Mbacké euh, école Mame Mor ñu def ay recherche pendant un mois deux mois def une restitution ci biir salle polyvalente su defee restitution ci kanamu njabootu Mame Mor def benn synthèse mu nekk de cours yoo xam si des cours yu mën a dispenser élèves yi pour ñu xam exactement école bi ñu nekk di fi jàng kooku mooy kan bu ñu defee loolu danañu mën a liggéey ci li nga xam loolu euh, les marqueurs territoriaux ndax dëkk yi développé yëpp ci àddina dañuy basé wu sur les marqueurs territoriaux maanaam les réalités de la localité ndax Mbàkke su fekkee da nga ko bëgg a administrer bu koy yemale Bambey wala beneen dëkk da ngay juum ndax réalité yi nekk ci dëkk bi dafa wuute ak réalité yi nekk ci leen la preuve mooy chaque quartier kilifa ga fa ne di xalifa mooy délégué de quartier moom mooy seet ki ko neex mu proposé ko ñu mën ko ñu mën ko dénk li nga xamante ni mooy quartier boobu boo fekkee xamuloo walla maîtriser woo comment ça se passe man nga fa nekk un figurant pendant des années doo jubóo kilifa yi doo déggoom ñoom ci ay programme te liggéey bi mën naa am soxe te dëkk bi fi fi mu tànt mooy Touba par exemple booy xool 45 degré lay dem amul benn ressource naturelle bu fa am jegewul géej jegewul benn activité boo xamante ni dafay war a mën a jur xaay lu war a mën tax nit ñi daw jëm fa mais li tax nit ñi daw jëm fa mooy Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul looloo a nga gis ko tëj këram almat yi ñëw takk ndigam def tànku neen xëyal kilifaam ba màggali jeex mu taalal koy loxo sëñ bi ñaanal mu dem loolu mooy capital immatériel sama bokk yi souvent dañuy jàng tuuti wax lu bari addina bi dafa dem ba ñi nga xam ne dañuy yoo ko jiite ci wàllu économie dem nañ ba xam ne ndekk le capital matériel dafa doon loo xam ne day dem ba am fu sës te bu fa sësee day deltuwaat ginnaaw mais ñu dem ba découvrir na am na beneen capital bu ëpp doole la capital matériel muy le capital immatériel capital immatériel boobu moo war gis un multimilliardaire jóge Dakar gaare oto bu jar cent takk ndigam lu lu mu doon bañ këram mu koy nangu ànd ak njabootam di liggéeyal nit ne moom ba pare tàllal ko loxo kooku ñaanal ko mu dem ñaan googu yaakaar jooju ak xel mu dal moom ak équilibre social bi muy am ci moom loolu milliard mayoo ko ndax bu ko milliard mayoo woon moo tax moo tax moo wax ak sama mag le président la république que mu bàyyi xel ne citoyen ordinaire amul citoyen tout pour mu am ci biir citoyen yooyu nag yàlla mooy tànn ku ci nekk def ci moom la ko neex comme ni ko yàlla tànnee def ko président la république mu yilif ñun ñëpp di utiliser alal réew mi ni mu ko neexee ñu jox ko suñu alal mu utiliser avion di utiliser toutes les commodités et avantages noonu ko yàlla cërale cër boo xam dafa am limite dafay am fu muy tàmbali am fu muy yem nga xam ne noonu la ci ci matériel nga xam ne noonu la yàlla cërale ay kilifa yoo ci biir capital immatériel cër yoo xamante ni dafa illimité dans le temps dañuy dund ba bàyyi ko fi fañ leen denc sax di génn ay ressources yoo xamante day dundal seen njaboot na bàyyi xel ne yàlla moo sàkk ñaar capital matériel mooy nitu nguur àddina ak capital immatériel mooy nitu yàlla bu seen borom gërëm bu fekkente nag li yàlla dogal ci yow d'accord nga ko bëgg ñu la koy matalal à 100 pour cent te li yàlla dogal ci keneen nanguwoo ko mais da sonal sa bopp da ngay sonal sa bopp durant toute ta vie c'est une parenthèse une précision parce que dafa jot léegi njabootu Serigne Touba euh, bu wax jotatee domaine bu ci nekk nga ca xam war wax wax ci ndax sëriñ bi yàlla fàggul na ko lu bari lu baree baree bare

yow sa vision dafa nekk par exemple pour sàmm lekk boobu la maa ngi ñëw parce que gis naa ni euh, kër sëñ Tuubaa yi sàmm la ko transformé en lieu culture mais gis également ni toujours da ngay maanaam li ñu gën a mën a formé loolu nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyi programme boobu mu ngi faral di gis si yenn euh, leader yi ñu koy prôné loolu est que bu xaajaloo population bi Babacar dama bëgg def benn précision domaine boobu bëgguma ci woon wax lu bari mais dina def benn précision du ma daanukat du ma daanukat ndax bu dee dox def naa 27 pays dans le monde pendant 25 ans kon gis naa lu bari j'ai fait plus de 500 et quelques dans le monde beneen bi ci des. j'ai un MBA en stratégie d'internationalisation à l'Institut africain de management. J'ai un MGO en stratégie de gestion des organisations avec l'Université de Québec à en co-diplomation avec l'IAM. J'ai fait un bachelor professionnel en marketing communication. du ma daanu kat dox naa jàng naa. j'ai été la primature comme conseil spécial en charge de la gouvernance. J'ai géré tout ce qui suivi des affaires municipales, toutes les synthèses régionales des gouverneur pendant trois ans. J'ai géré des dossiers secrets de l'État pendant trois ans. J'étais au cœur des choses. Djibo Ka yal na ko yàlla xare aljana dama toog benn guddi YouTube li ko suivre ba 4 heures du matin mu xam ne ne homme d'État wala ko les affaires de l'État li ngay xam da nga ko war a deewaale maanaam sunu taalibe nag li ñu Sëriñ Tuubaa defal moo ñu gënal yii nga xam ne day jeex ndax li ñu Sëriñ Tuubaa defal du jeex moo tax souvent da ngay dégg ñu lay takk ne di la tooñ doo tontu doo wax li tax ma xam ne ressource benn ressource benn ressource moo am diggante Touba ak Mbàkke muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ressource boobu moo tax 5 millions de personnes di daje Touba par Magal amul benn pays au monde benn activité au monde buy mën a regrouper 5 millions de personnes amul activité boobu ñetti fan di dresser plus de 285 milliards entre guillemets selon l'université Bambey loolu amul benn réew buy drainer mbooloo mu ñu toll ak activité bu ñu toll ci temps boobu te ña fay daje kenn du jënd lekk kenn du jënd naan kenn du wut foo la koy amul loolu nag ressource bi tax loolu am muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci Omar Fouti Tall moo ko njëkk a fii ci Mbacké dèjà loolu marqueur teritorial képp koo xamante ni tukkulóor nga yaakaar Cheikh Omar Fouti taal war nga ñëw ziyaare Mbusoobe garab gi nga xam Cheikh Omar Fouti fa lañ njëkk a découvrir te yendoon fa Sëñ Tuubaa yendu fa ba ci li bii bind Masaalikul Jinaan fa la nekkoon ça c'est un peut-être mbir dana am ña ko yor duñ ko xam duñ ko maîtriser joxoñ ko gëdda parce que xamuñu wala buñ xamee it peut-être du priorité beneen ba ci des Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Mbàkke rek feeñi jamono fi mu feeñi jamono fii conseil municipal bi délibéré na jébbal ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul pour sëriñ bi def fa daaray kaamil yoo xamante ni dañ fay wàcc alxuraan continuellement doon bërëbu ziar fii tey stade bi nekk kenn mus koo moom ci àddina bi fa sëriñ Touba jógee sañ ci Daaru Salaam ba tey nit mus koo moom stade bi damaa jàpp ne dafa faa nekkoon pour denc ko ndax bu fa nekkoon dañ ko morcelé même club olympique bi waxoon ñoo ko moom moomuñu ko feneen lañ moom ndax titre foncier 1788 du fii fii kenn mus ko titre kon dafa newoon pour protéger ko moo tax conseil municipal délibéré jox ko Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha commission bi liggéey ci commission bi présidée par le maire de Mbacké le chef de service des impôts et domaines le chef de service de l'urbanisme le chef de service du CARAS ñoo daje toog liggéey ci jébal ko préfet ñu approuvé ko ñu defar bail bi le gouverneur approuvé ko ñu dugal ko titre foncier ci la ko ministre bi au lieu mu andil ko ñi ko liggéeyee ñu dem jébal ko sëñ bi ñu coupe circuité màggal Tuubaa dem jébal ko sëñ bi mais loolu c'est pas important ndax c'est politique mais li am solo mooy mbub mii ma sol sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko yëkkati jox ma ngir mbégte li am ci kër sëñ Tuubaa ndax dimanche la ñëw ci kër sëñ Tuubaa gi ci fii ci mairie bi wax ma li mu bëgg ma teg ci sama sama kemtalaay kàttan ànd ci le conseil municipal ba ñu voté ko à l'unanimité ñu jébbal ko commission bi ko war liggéey bi commission bi pare jébbal ko le mu approuvé ko ci loolu bis bi ñu ko jébbalee kayit yi xolam mu sedd moo tax moom mii la soloon jour boobu kilifay kati jox kon man awma droit leeral sama kemtalaay kàttan maa koy pour redresser pour relancer relance programme de relance boobu nag moo tax su ressource bi Touba am mu Cheikh Ahmadou Bamba ba tax ñëpp fàq ñëw moom lañuy mett en valeur moo tax ñu miirewaat barabu Mamoor Jaara borom sàmm ndax fi mu toll ci sëñ Touba fi ñu ko denc wërtoonu mel na meloon beneen bi ci des ñu liggéey li nga xamante ni mooy armée li bàpp bi pour segam ñi ngi liggéey ko Sëñ Tuubaa armée li bàpp yi war na ko liggéey liggéey liggéeyin woo xamante ni ku fi jaar da xam na ay wàlliw ay nit ñu baax ñoo fi tëdd noonu lañuy liggéey une partie di cimetière Tukulóor yi am seen meneen mbokk mu baax mu ñëw dugal ci loxo mi ndax loolu noonu la liggéey bi tamit église bi noonu lañ leen jàppale ñuy defaraat église bi loolu waral bi nga xamee joxe nañ kër Sëñ Tuubaa gi ñu yëkkati 100 tonnes ciment joxe dans un premier temps yëkkati 80 tonnes joxe waat loolu bu ñu koy def pour kër Sëñ Tuubaa gi taxaw la te du ñu arrêté bu ñu suñu borom dimbalee bu ñu jógee ci yii bu ñu yàlla def lay ndam lañ defoon dañ koy defaat ndax kër gi dafa war a liggéey bi def wër a taxaw te du taxaw liggéey Sëñ Tuubaa ci dynamique boobu ci lañuy liggéeyee ba teen bi maam Cheikh Ibrahima Fall daan rootal Serigne Touba ñu jël décision pour gasat ko mettre ci des équipements yoo xam dana mu nekk teenu barkeel teen bu ñu daan rootale Serigne Touba ñëpp dañ ci war a barkeel donc kon ñun suñu liggéey mooy fexe de sorte ko ndax gis nga ren ni Mbàkke ubbee ko ci màggal yi dañuy liggéey de sorte que pour que ñu tijji Mbàkke définitivement pour que murid yi màggal si te ñoom su fekkee ñoom ñii am nañ ci moom yaakaar bu rëy mu ne mbéy mi nga xam ne yaakaar béy dañoo fekk des xaale te ñaar bi ñaar jëm ba te moom fan la di leen ñaanal nag yéen ñaanal moom ci liggéey enseignement bi bu ko question Babacar bi ma am importance tellement Euh, cimetière u bàpp gi ba soobee kër sëñ Tuubaa gi Mamadou Mbacké l'association des professionnels de la presse en ligne du Baol indi initiative bu am solo fa seeni si onde ak mboolem candidat toutes les coalitions toutes les listes mu doon municipal wala départemental jàpp leen seeni ay plateau ay lan nga mën layale loo xam ne lu leer nañ lay doon sans pour autant que ay théorie mais nga nekk carrément Mbacké lii moo tax ma jël aspect religieux bi ma gën a rof sama loxo ci waa diine ji euh, te mu doon nag lay wu dëgër maanaam argumenté vos arguments action ay direct ci concept bi ñu duppee tànneefu askan wi mbokk mën ngaa gaaw saisir bi les yi moo lay may visibilité yi di nga si ànd ak ñun mooy technique yu xarala ngay am sur plus de vingt sites internet mais également après la direct dinga am intégralité émission bi bu ngeen amatee ay caravane ngeen am ay proximité ay porte à porte ngeen def déclaration saisissez cette opportunité ndaxte moo leen di yembal fa ngeen bëgg seen message àgg fa mu àgg fa si li mu gën a gaaw a gaaw ànd si ak ay professionnel si mbooleem wàll lépp lu ngeen ittewooti si wàll wundu mel couverture médiatique appel ba jóg taxaw tem ngir ànd seeg yéen bu ngeen si bëggee ay renseignements mën ngeen contacter numéro yii di défilé ak sunu service commercial local 2000 bu fekkee dañ koy da bëgg ziyaare lu bokk ak Sëñ ci deret Maam Mor Jaara ngi tudd ci ak fi mu tolloon Sëñ Tuuba bu fekkee da bëgg ziyaare doomi Sëñ Tuuba Mouhamadul Kabir mi ngi tëdd fii mooy taawam soxna Fatima mooy magi sax moom Fadal te lu lu yéeme la waxoon soxna Fatima dana moom juddu bokk ci Sëñ Tuuba doy na ko martaba yàggul dara mu faatu te boobu tout tànk Cheikh Mamadou Yadaali circonstance yi mu génn àddina maanaam taroon na Sëriñ Tuubaa tar goo xamante ni murit bu ne war ngaa déplacé fa nga nekk di ziar Cheikh Mamadou Fat Cheikh Mamadou Yadaali ngir dund la Sëriñ Tuubaa maanaam circonstance yu métti yi nga xam ci la doomam jooju wàññeeku Mouhamadou Abdoul Khadir mi ci biir barab Sëriñ Bousso bi ay doomi Sëriñ Tuubaa la yoo bi ñuy génn àddina maanaam ni mu taree ak ni mu méttee ci sëñ bi ñun murit yëpp war nañu dund la Sëriñ Tuubaa tar boobu di leen ziyaara di leen ñaanal ngir bokk Sëñ Tuubaa yéeg yi boobu barkeeloo Daaru Salaam la Sëriñ Tuubaa njëkk a sanc Maam Cheikh Anta mooy échantillon ci yoonu Bàmba maanaam li Sëñ Tuubaa defar échantillon bi nga xam ne échantillon mooy lu réussir wala lu réussir mais échantillon bi mu njëkk a def ci yoonu Bàmba mooy Maam Cheikh Anta mu une réussite à 100 pour cent boole ko ay taalibi jox jàkk ji Sëriñ Tuubaa njëkk rëddal tànkam di fa jiite pendant deux ans mi ngi daaru salaam bépp murit war na faa dem ziyaara ji julli fa ñaan ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bi mu jigee ci géej gi lal bim mu ñu koy teral mi ngi fii ci daaru salaam maam si Anta tëdd fa sëñ Modou maam ak doomam yu baax yëpp tëdd fa dafa war a bokk ci <coughs> jëpp njabootam gépp a ngi eh, fii ci daaru fii ci Paleen sëriñ Omar Diop nga xool ne waxoon ne sëriñ Tuubaa xëylul benn wàlliw gonte mi ngi mbàkk gi sëriñ Mbusoobe njabootam gépp a ngi fii ci mbàkk yi sëñ May mar njabootam gépp a ngi mbàkk njabootu Cheikh Amar Fuuti Taal ñi ngi fii ci mbàkk donc nga xool ne ñun sunu rôle mooy la promotion et tractivité de la commune de Mbacké pour que nit ñi mën a am une fréquentation fréquence boobu nag mooy ci ngay basé wu pour indi de programmes lu jëm ci wàllu commerce lu wàllu jëm ci wàllu hôtellerie lu jëm ci wàllu lépp loo xam dafay jur xaalis beneen bi ci des mooy intercommunalité bi li tax moom solo mooy de di vingtaine de projet ñàkk na ko yoo xam li ko waral mooy problème de foncier parce que Touba titre foncier global la titre foncier bi turu Cheikh Amadou Bamba Xaadimu sol nekk pour la communauté mouride ci intercommunal dana permettre les projets yi nga xam da koy da war a porter te amul fonds si mu ko teg ñu waxtaan ak commune de Mbacké d'une manière conjointe teg ko ci lu leer waxtaan nga xamante ni bu boobaa projet bi bu ko bu ko Touba porté su ñëwee Mbacké lañ koy implanté Mbacké di ci gagné lii Touba di ci gagné lii intercommunalité boobu li muy jur mooy élèves yi nga xamante ni 80 pour cent yi waa Touba lañu. Touba mën a am canal institutionnel pour mën a teg sur la table de l'argent pour accompagner ses élèves boo xoolee toutes les activités sportives yi nga xam dañ koy defee Mbàkke ñu ci ëpp waa Touba lañ te Touba da ci wala participer te intercommunalité boobu mooy permettre rubrique yi nga xam ci budget dañ ko jox pour culture te du ko utiliser jox ko pour sport du ko utiliser jox ko pour leen te du ko utiliser man ko verser ci biir projet intercommunal bi ndax boobaa Touba day nekk une commune autonome gérer projet Mbacké une commune autonome gérer projet mais day am ay projet am ñoom ñaar ñoo koy seet ndax manque à bi nga xamante ñun dañ leen dañ koy gàddul Touba foofu la Touba mën a profité pour mën a verser xaalis ci biir projet intercommunal yi ñu mën a jël en charge xale yi ci domaine santé éducation. dafa yaatu ndax boo xoolee marchand yi ci secteur informel lañ nekk moo tax ñoom un projet pour réhabiliter le marché central en cinq étapes la première étape liggéey nañ ko mooy mal bi ak li ko wër en pavage pour permettre ndox mi di mën a dem mais ñu reprendre architecture bi liggéeyaat mal bi ba mu nekk mal bu mucc ayib ñu jënd quatre frigo congélateur jox ñett ñiy jaay jën may leen ko benn bi jox ñuy jaay yàpp deuxième phase bi moom laa wax tout à am na deux cent million boo xam ci par ci biir 408 millions yi ñi ko jagleel marché central bi mais aussi am na beneen enveloppe bu ñu jagleel marché sancaan ndax marché sancaan yi lotissé woon nañ ko joxe loolu mooy première étape deuxième étape bi mooy ñëw defar mal ba ba pare yokk éclairage bi mais aussi yokk li nga xamante ni mooy salubrité mooy cet ga fa nekk ndax boo xoolee li dëkk ci côté sancaan yi dafa bari bien vrai que mooy marché central bi mais ñaari marché yëpp dañ ci continuer di ci liggéey dañ may équitable beneen bi ci des commencé nañ ay cantines yoo xamante ni yóbbu woon naa ñuy jaay dàll ak yenn commerçant yi à Dakar benn immersion ñu dem découvrir xool cantines yi nekk ci zone boobu bi ñu gisee cantine bëgg nañ ko mais teewul dama entrepreneur bi na ñëw defaral ñu cinq ñu xool rafetlu nañ ko bëgg nañ ko mbaaru daal aussi cantine yooyu lañ fi bëgg a def accompagner jeunes yi foofu ñu mën ci accéder en moindre coût pour ñu mën a gën a nekk dans des conditions les meilleures ci biir transport bi ñun liggéey nañu ndax dañoo ñëw fekk gaaru ceeru Mbàkke ñu joxewoon ko ci benn benn baay bu quatre-vingt-dix-neuf ans mooy naa un million cinq cent par mois ñu liggéey ci liggéey ci ba wàcc ko ba vingt-cinq ans mooy naa trois millions de francs par année ñu waxtaan aussi ak transporteurs yi ak ki nga xamante ni mooy promoteur bi pour que ñoom ñu mën a dugg ci biir garage moo amoon nag ay xat-xat ci diggante ki nga xamante ni mooy Pape Diop Diagne nag yàlla xare aljana ak le promoteur mais ñi ngi ciy liggéey avec le nouveau préfet ba am nañu benn consensus boo xamante ni dañuy redynamiser garage bi gaaru routière bi ni ñuy dugaat ci biir oto yépp mën a dugg ci biir bu liggéey bi Mbàkke mën a am benn garage bu fonctionnel avec toute les commodités pour mu continuer dox ci loolu it am na ay chauffeur de taxi yoo xam organisé wu lool sax yoo xam ne ñu ngi di déglu di waxtaan ak ñoom donc ñu liggéey aussi liggéey ba rafet ba am na benn projet MECTRANS boo xamante ni am na Touba li tax MECTRANS duggul Mbàkke loolu sama veto la ndax MECTRANS bu duggoon bu yu Touba bu duggoon Mbàkke Mbàkke du jot wàllam suñu bëggee évoluer Mbàkke MECTRANS na financé chauffeur Mbàkke yi ñoom ñoom ay oto yu bees comme ni ko waa Touba amee mais bu fekkee ni dañuy bàyyi rek Touba dugg biir Mbàkke bu ëllëgee samay transporteur duñu am ci oto yi kon suñu bëggee seen liggéey dugg Mbàkke nañ financé ñoom sama transporteur dëkk dafee ñoom ñu mën a defar seen bopp bu dee ci côté toujours transport maan yi jàppale nañ leen euh, ci Covid bi wante jàppale nañ leen ndax 3000 lañ daan fay ñu wàññi leen ko defal ko 2000 francs yëkkati 1 million de francs may leen ñu def ko seen kees ñu jënd ci ay jakarta di ko leen seen biir donc xam nga développement comme li du lu ñuy décréter mairie rôle am mooy organiser di am ay recettes di ko redistribuer askan wi li ngay jël nag di ko joxaat askan wi di manière sociale liggéey ak ñoom d'une manière ngeen jóg ndànk-ndànk dox ba teg lu dëgër moo gën ngay jóg rek sonal leen fàqat leen yàq seen lu bari ndax boo seetloo 2017 2018 bi ñuy déggee fi am na caterpillar boo xamante ni mi ngi woon kër buntu kër Alaaji Xaadim ak cinq camions boobu Mbàkke lañ ko affecté woon pour ñu dëgër piir artisan yi nekk ci artères yi mais damaa gis ne boo leen dëgër piir rek amuñ fuñ jëm dèjà ku ci sa soxna feebaroon wala ku ci amoon jafe-jafe nga dëgër piir ko jafe-jafe yi gën a yokk ma ne man gëwuma dëgër piir man li muy gëm mooy redéploiement stratégique c'est-à-dire nit ki fi mu nekk di fi daan dooleem. donte nekku fa ci yoon jàppale ko mu am fu gën fa mu nekkoon mbaa fu mel fa mu nekkoon pour ay activités mu continuer rôle mairie liggéeyam lépp réglementation c'est vrai dafa am une rôle un rôle régalien d'accord mais aussi dafa am aussi benn touche sociale boo xamante ni war ci mën a appuyer pour mën a accompagner askan donc ci biir euh, conseil municipal bi am nay artisan am nay commerçant donc tous ces paramètres jël nañ ko en charge dans le cadre de notre programme d'ailleurs deux hectares huit cent yi yi natt pour jox ko les artisans c'est validé c'est homologué ça y dañ ko exécuté d'ailleurs Mor Sow lañ ko dénkoon yàlla dogal bi mu tolloo ci wàllu jublu ci mu am jafe-jafe loolu moo tax ñoom jotuñu sax seen kii avant mais incha allah bi cent 291 ateliers et garages la c' est calé c' acté dañ leen pour mën leen libérer ak jërëjëf le ministre de la jeunesse ñëw na fii def une proposition ni dafa bëggoon a réhabiliter conseil communal de la jeunesse à publiquement gentiment ñu sant ko gërëm bi wante xamal ko ne ñun réhabilité wuñ soxaluñu une réhabilitation nañu projet pour tabax un complexe la jeunesse ci loolu it wax dëgg yàlla ay yëngu amoon na fa ndax yenn jeunes yi meroon nañu wax ba am na sañu ñu xaw a dépassé mais xam nga boo jiitee da ngay war yaatu dënn da nga war nangu encaissé sept yi dund naa fi coono yu métte métte métte dund naa fi wax ju bari sos saaga tooñ yooyu yëpp boo toppoon ñi ko def rek doo doo doo sori moo tax boo jiitee sa xol dafa war a ubbeeku war a ubbeeku sa dënn dafa war a war a mën a encaisser ci loolu coow li li muy bari bari bari après ci les ministre bi jël décision pour réhabiliter le CDEPS ñu lancé liggéey bi def ci liggéey bu am solo raser ko def fii li nga xamante ni mooy complexe communal de la jeunesse parce que àddina il faut ambition àddina bi ñun tubaab yi duñ suñuy njaatige seeni nawle lañu luñ am rek ñun war nañu am lu ko raw ndax am nañ ñoom lu amul ndax boo la Afrique yàlla ay ressources la ko may tubaab yi yàlla may leen xarañte te xarañte boobu jàng moo ne ko may kon ñun il suffit ñu jàng am xarañte wante dem ak éthique ak déontologie parce que tubaab yi buñ jàngee yi am na ay am na ay valeur yoo xam ne am nañ ko te valeur yi ñun ñoo leen ko ëppale mais ñu nañ ko am te utiliser ko ñoo lañ ko am nag utiliser kon ambition yi moo taxoon ñu ne nañ ko raser tabax fii ce complexe boo xam ne am salle polyvalente ci suuf am des toilettes am cuisine am débarras mais aussi ci kaw ñu def bureau municipal ak bureau conseil communal bureau culture bureau sport donc loolu moo ci nekk dëgg yàlla bëggoon na ko mais ñun à l'époque li gis moo gënoon a li ministre bi gis on n'avait pas les mêmes visions. voilà merci beaucoup monsieur le maire euh, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm leeral yi mënoon na ëpp lii waaye temps bi nga xam ne amoon nañ ko dañu ci yegg si boo ñu doon jox kàddu yu mujj yi rek euh, pour ñu joxante di daje beneen lan lay doon. kàddu yu mujj yi sant yàlla bu baax di sant population de Mbacké yépp di sant kilifa yi nga xamante ni ñoo jiitee dëkk moo ci tuddoo sëñ Abdoulahi Mbacké xalifa Mamoon Jaara tudd ci sëñ Abo Mbacké xalifa Daaru Salaam tudd ci sëñ Cheikh indi Xadi Fall xalifam maam Cheikh Ibrahima Fall julli ci njabootu sëñ May Amath julli ci njabootu sëñ Omar Diop julli ci njabootu Cheikh Amadou Tidiane bi nga xamante ñooy taalibi yi nekk dëkk bi yëpp ci jiital Thierno Abdoulaye Bousso ci jiital njabootu Mboussobé ci jiital njabootu ci Mbàkke Ramata ku rek di ci jiital njabootu Serigne Touba yi xam moo jur seeni waajur ne ci dëkk bi ci jiital soxna Maymuna Mbàkke ak ay rakkam di ci jiital njàngo bi di ci teg kilifa yëpp di ci teg kilifa yi njaxala yëpp fàttewuma kenn di leen ñaanal suñu borom yàgg leen suñu kanam wante aussi di ñaanal dëkk bi yàlla def fi jàmm ak salaam di ñaanal waa dëkk bi suñu borom def leen teraanga yu sax di ñaan suñu borom mu defal jàmm ak sutura waa Mbàkke ba lépp lu suñu boroom di def Mbàkke ëpp la ci ci barke Xaadimu maa ngi remercier aussi population yépp di sant sama bokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci sancaan yi muy Daaru et ndax day zone boo xamante ni man dama jàpp ne sama projet la quartier boobu sama projet la ndax dañu fekk ku dara nekkul ñu rey ñun dafa xat te mbir deesu ko forcé ndax sëñ Tuubaa tax ma koy def ndax loolu du xaalis ne sama xaalis te fas naa yéene bu jàllee d'ailleurs ambulance baax yu mbàkk ci peintre bu jàllee dinaa dem teg ko ci loxo suñ aboo lu yóbbu leen ndax désormais doyen extension zone boobu lépp ci Daaru Salaam maa ngi tamit remercier sama collaborateur yi nga xamante ni ànd naa ñoom liggéey ci conseil municipal bi 2014 ba 2022 maa ngi féliciter aussi di encourager ci biir conseil municipal boobu maa ngi ñaan suñu borom mu teg jafe-jafe ak métit yi tege ci taw Mor Sow premier adjoint ak soxna Aminata Silla li nga xamante ni mooy jigéen ju man góor liggéey ne ci yi ci biir conseil municipal bi liggéey bi jéggi dayoo yàlla ko yàlla fay di remercier l' administration communale bu Mbàkke ci bopp yi ma jiital ci secteur municipal wante bi ñaan yàlla suñu borom mu defal tawfeex ñu fàlluloo bi agent municipal dynamique wante di sant aussi bu baax ci collaboration service technique yi nga xamante ni ñoo àndoon di liggéey ba 2022 di waxtaan ak ak askanu Mbàkke rek xamal ne liggéey bi doo te taxaw day continuer perspective yi am na solo programme yi mi ngi sur place ñu ngi jëm ci defaraat tali yi nekk biir Mbàkke ak Mbàkke rond point Mbacke ba Kaffrine Eiffage mi ngi installé à Diamaguène amee tali yëpp dañ koy defar avec les territoires mais aussi ak voirie biir Mbacke plus assainissement bi donc projet yi bari na loolu ci bari dañ ko porté liggéey ñi sonn ci ndax ñun dëkk bi du politique moo ñu boole ak waa Mbacke ndax politique day jeex mais Serigne Touba moo ñu boole ak waa Mbacke moo tax laataa ñu doon maire ñu jël suñu alal di ci sonn pour dëkk bi ñu doonee maire dañ ci dañ ci xar suñu tànk tubéy moo tax ñu toog Mbàkke dem fi sax Dakar rarement lu dul farata ñu continuer bu ñu dee ba mission bi mati dañuy continuer di dugal seen loxo ci Mbàkke ngir Sëñ Tuubaa moo tax nag maa ngi waxtaan ak bokki Mbàkke yépp ñëpp jàppale ma ci liggéey boobu ba dimanche ñu jàppale ñu ci liggéey bi wateel suñu coalition bii di coalition Bokk Gis Gis pour que au soir du 23 janvier 2022 ñu jotaat ci commune Mbacké continuer liggéey bi wante ñu jot ci conseil départemental bi ak ci Abdou Mbacké baax dolli pour liggéey bi mën a jëm kanam ndax perspective yi suñ kanam àddina euh, dafa dox te retard bi Mbàkke am année yi romb ak dynamique bu bees bi ak engagement bi ak ni jeunes yi commencé yeewu ni commencé am volonté populaire pour yëfi dox kooku warul taxaw warul ndax dañu war a suñu rajo yi nga xam ne ñoo doon synchroniser ñu leen di gërëm dañuy couper ak ñoom waaye nag boo nu ko mayee ñu continuer ak appel B association des professionnels de la presse en ligne euh, sunu mbokk site internet yi euh, war nañu mën a dem ba quelque simili ndax am na question yoo xam ne ñoom bëgg nañ ko leerlu ci sa jëmm ji ak liggéey bi ñaa ngi koy liggéey kon ñoo ngi gërëm Walfadjri di gërëm i rajo di gërëm aussi Zik FM ci seen collaboration ak ñun vraiment ak salaam euh, FM vraiment seen taxawaay am na solo ñoo leen gërëm boobaak léegi taaxirlu bi yàggoon na waaye ñu ànd ak ñun ba aussi tamit euh, bàyyi lu bari ci seen programme jagleel ko suñu open press bi nga xam ne organisé nañ ko ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax ñoom auditeurs yi bàyyi xel ñetti rajo wala ñeenti rajo yooyu Walf Zik i rajo ak Salam FM ñu continuer ak appel B association des professionnels de la presse en ligne bu ko defee kon nga may nu ko tuuti rek xat nga waaye nga may nu ko tuuti rek ñu yeggale ñu jox la question à Abdoulaye Faye bu ko defee moom membre la association bi mu poser sa wala ses questions allah jërëjëf sëñ Bassirou Amar monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di rafetlu jataay bi xam naa am benn laaj bu nu bëggoon samp wala ñaar mu mel ni euh, bu nu waxee departement bu Mbacké surtout diggante Mbacké ak Touba nemmeeku nan jafe-jafe yu am solo yoo xam ne nii askan wi ñu ngi koy dund ci yoolu transport rawatina élèves yi ngeen bokk ci ñi nga xam ne ni da ngeen di laajaat mairie bi ndax mën nañoo xam ndax euh, ndax mën nañoo xam ndax mairie bi am na benn programme boo xam. jagleel na ko côté boobu surtout élèves yi beneen bi itam wax nga ko léegi ci sa njalbeenu kaddu wax nga ko sa fin kaddu muy jafe-jafe yi nga xam ne ni jamono yi nemmeeku nañ ko au niveau de votre mairie jëm ci ay euh, ay doomu aadama yu tumaal ci wàllum këyit wax nga ne mu ngi ci loxo yoon loolu itam bu jëlee loolu teg na le day mel ni askan wi léeg-léeg dañuy xaw a am ay jafe-jafe ci wut ay këyit ci bërëb yi mën nañ ci tudd léeg-léeg ci maire yi su yi ci police et cetera te loolu nekkoon loo xam ne ni lu leen war a yomb ñu bëgg na xam Euh, bis boo jëlaatee mairie bi ban yi ngay am ci loolu ba yombal ko moo xam muy transport bi moo xam ci wutum këyit bi jërëjëf. jërëjëf fi nga daaneel lay tàmbalee muy ci wàllu këyit bi ñuy en mille 2014 dañoo jël huissier de justice mu defal ñu constat ci existant bi nga xamante ni mu am ci mairie bi ci wàllu këyit li fa nekkoon ci wàllu këyit bokk na ay années yoo xamante ni du am registre wala registre yu néew la ma jox benn exemple. mille cinq cinq moo am ci mairie de Mbacké juróom cinq registres mooy représente 250 personnes cinquante chaque registre 50 personnes lay def te 12000 personnes 12500 personnes environ am nañu ay këyit ci 2005 léegi nga xool léegi 12500 personnes boo génnee 250 personnes day def 12250 personnes yu am këyit te amuñu registre. li dal suñu agent yi du dara lu dul defaral nit këyit sukkandiku ci këyit yi nga xamante ni dafa jeex te nekkul ci registre am na ci boo xamante de 1991 la officier d'état civil bi ko defaroon mi ngi fi donc kon rëq-rëq yooyu euh, ay mesures correctives la ñu war a jël loi bi am na lu mu prévoir ci lool waxtaan naa ci ak kilifa yi nga xam ñoo yore wàllu yoon li ci loi bi prévoir mooy nañu fexe ba ñu am kayit ñu continuer seen seen droit yooyu ñu continuer di ko am benn on va vers ce qu'on appelle la reconstitution des archives reconstitution boobu segam ñoom les sociétés judiciaires d'accorduñu bu indi kayit gu jeex ñu sukkandiku ci defaral la ndax nit bu amee quarante ci këyit am ci passeport am ci extrait bu jeex bu ñëwee da ngay dama koy defaral mais yoon aussi dafa am nu mu organisé te loolu segam nangootuñu ko kon nit nañu bàyyi xel ne li gën a jàmp actuellement mooy cette rencontre la bu ñu war organiser ak autorités yi nga xamante ñooy ñooy les autorités judiciaires autour d'une table dañuy def un diagnostic approfondi ci li nga xamante mooy l'existant parce que existant bi ñun déjà ñun bàyyi woon nañ ci xel ba defoon constat pour année yi nga xam ne yëpp amul registre reconstitution boobu buñ ko fa xasee def njariñ li muy jur mooy puisque ñun répertorié nañ plus de mille cent trente et quelques mille personnes dans le système yi nga xam ne na yu ëpp scanné nañ lépp lañ scanné bu ñu defee la reconstitution mooy ñi ngi xam ne répertorié woon nañu te nekkoon ci registre ñu créer ay registre yu bees tribunal parafait ko ñu inscrire leen ci pour boobaa léegi problème bi jeex définitivement mais fii ñu toll nii li tax mu am ralentissement mooy ñi xam ne ñoom kayitu juddu te nekkul ci registre parce que tribunal nee ne ku nekkul ci registre bu ñu la defaratal kayitu juddu dañuy obligé tamit arrêté ci ci pour ñooñu nekkul ci registre te seen droit la parce que ñoom defuñu dara c'est des citoyens mais 2005 ak la ko jiitu officier ya fi nekkoon ak ñi doon gérer kayitu juddu doomu aadama yi ñooñu ñoo defloo seen liggéey la preuve bi ñuy ñëw 2014 ay saako lañ fekk yoo xamante ay vole ñoo ci nekk vole mooy boobu boo amee bu ñu war a transcrire au lieu def ko ci registre. dañ ko doon transcrire ci ay papier yoo xamante c'est des papiers volants papier volant yooyu nag moom lañ doon day daf koy takk daf ko ci ay saako mu tawte bi mu tawtee nag ñun bi ñuy dores automatiquement benn suba teel lañ ma woon ne oto mbalit bi génne na saako yu bari ci oto bi war ko tuuri ci la wax le secrétaire municipal mu arrêté chauffeuru camion bi bañ bi ñëwee après le premier adjoint da woy huissier de justice mu constaté ñu xool ko yi ci mën a ubbi ñu ubbi ko xoolaat xam ne lii ay ay transcription la ay kayitu juddu yoo xamante nii dañ koo def ci registre deful ko ci yàqu na kenn mënut ko exploité yooyu boo xoolee bokk na ci rëq-rëq yi nga xamante ni moo individu mais ñi ci am kayit reconstitution bi mooy li ne ci base bi la ñuy ci ay registre ci témoignage Euh, président tribunal bi nga xamante moom mooy kilifa gi gérer tout ce qui état civil ko defee liggéey bi mën a continuer mais pour bu dire que ci wàllu sécurisation teg nañu système boo xam ne ci état civil ku yàlla bind mënatu ci def lëkkaloo te lu ci waay def balaa mat deux minutes une minute sur la machine da nga xam kan moo ko dugal ak nan la ko dugalee mais nag lii ay ay erreur yoo xamante ni ñi jiitu woon dañ ko def moo rattrapé suma ay agent léegi nag loolu pour protéger agent yi aussi il faut autorité judiciaire yi ak mairie bi toog ñu juboo ci benn programme liggéey ko pour aussi man ma mën a protéger samay agent ndax bu dul loolu lii day continuer ndax c' est liggéey la ñu fekkee wuñ ko kon waruñoo conséquence warul dal suñu kaw li jëm ci transport scolaire déjà ñun amoon nañ un projet avec Tata pour waxtaan pour que ñu ñu joxe benn apport ñu jox ñu 20 Tata ñuy fay ndànk nag bi ñu ci defar projet bi maa ko dénkoon fu ñuy wax Dame ak comité bi mu àndaloon liggéey nañ ci liggéey bu am solo déplacé wu nañ fi ànd ak Cheikh Fall bi nga xamante ni nekkoon na adjoint au maire di mécanicien àndoon ak Mor mécanicien àndoon ak yeneen ñaari conseillers ñu dem seeti direction Dakar le directeur général ba jubóo ci principe bi mais ARMP ñu accepté wul woon type de projet bi ñu waroon def li ñu accepté woon mooy lancé benn appel d'offre ndax concessionnaire yi fi nekk yëpp mën ci participer loolu tax nag dans notre PDC dans notre PAI notre programme de notre programme triennal d'investissement mooy PTI bi prévoir nañu en 2023 219 millions mais aussi am na beneen projet bu ñu teg ak Touba donc kon teg nañ deux projets benn bi ak Touba la dans le cadre de l'intercommunalité pour jënd ay bus pour transporter élèves yi deuxième bi dans le cadre d'un projet boo xamante ni commune de Mbacké rek moo koy porter pour mën a jël en charge les élèves yi xam xam dañuy jàng Mbacké ak Touba ak ci biir dëkk mbir mi jeex na ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa disponibilité ngato ak mbokk yi ba yeneeni jamono euh, incha allahu taala monsieur le waaw fi may daaneel kàddu yi rek mooy ñun suñu njiitu dëkk ñoo koy tànnal suñu bopp kenn duñu ko commune waa dëkk bi ñoo xam ki gën ci ñoom nga xamante ni bu jafe-jafe amee walla bànneex moom la ñuy gis ki accessible ci ñoom ki nga xamante mi ngi liggéey suba ak ngoon guddi ak bëccëg pour jàppal leen pour que ñu réaliser seeni rêve loolu jeunes yi xam nañ ko jigéen ñi xam nañ ko góor ñi xam nañ kon maa ngi leen di ñaax rek pour que incha allah rabbi dimanche mbooloo mi génn teel a ñu wàcc ci kër yi wante ñu sécuriser li nga xamante ni mooy vote beneen bi ci toog mooy ñu bàyyi xel ne am na ay doomu aadama yu jël ay xaalis yu bari ko jox ay nit ak di def ay corruption ñu bàyyi xel ne xaalis yooyu ñu joxe am nay jamono gënoon naa metti te askan wi gënoon na ko soxla te defuñu ko ci jamono yooyu gënoon naa mais nag nit ñi nelawuñu gëmmuñu nelawuñu xam nañ ku leen bëgg utiliser def leen yéegukaay xam nañ aussi kuy sonn pour ñoom kon maa ngi ñaax jigéen ñi ñu teel a génn mobiliser wu dem vote ñaax ndaw ñi xam ne dëkk bi cinq ans yi ñëw seen avenir dëkk moo nekk en ku ñuy jiital di ko tànn na doon koo xamante ni seen intérêt daf caa nekk ndax dëkk duy caaxaan dëkk kenn du ko délégué ridwan la alayhi ibrahima gay yàlla na ko yàlla xare aljana bi ñu defee passation de service ba pare dane ma maa ngi lay conseil conseil boo xam boo ko toppee li ma daloon du la dal man li ma nekk maire lépp xaw ma ci dëkk bi dara samay pouvoir yépp dama ko délégué weekend laa fi ñëw wa ilaa bu ma fi yàgg yàgg ñaar wala ñetti fan laa fexeel ba sagam engagé woo pour jiite dëkk defal tout lépp loo man ba toog ci dëkk dundal dëkk bi seeni problème ànd ak ñoom ci li nga xamante ni noonu la dëkk war dafa ñu def te effectivement c'est vrai yu l'a su kon nag dëkk bu fekkoon ab ministre doon ministre mooy tax sa dëkk dox ab lay Sarr maire Yoff depuis plus de trois ans wala quatre ans mooy ministre la santé te hôpital boo xoolee centre de santé Philippe Maguilène Senghor bële centre de santé Mbacké tane bu fekkonte ni doon ministre mooy tax sa dëkk dox Omar Youm nekk na ministre des collectivités territoriales nekk na dëkk de cabinet du président la nekk na ministre du transport te caajaay bokk na ci dëkk yi gën a arrière Sénégal ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite kon bëggoon naa leeral tuuti yi gis nga ministre yi marge de manœuvre yi néew la ñu am ci seen ministère yi te loolu boo koy wax nit ñi duñ ko comprendre ministre bi actuellement boo xoolee DAGE yi nga xamante ñoo ne ñoo yore xaalis ak équipement yi ci ministère bi en général ñu ci bëri ak ministre wala buñ jubóo it dañoo jubóo pour dëngal DAGE foofu gis mu jubóo ministre ñoom ñaar ay sàcc lañ non dafa am loolu yomb comprendre DAGE boo gis mu am complice ak ministre am ñoom ñaar ay sàcc lañ benn deuxièmement les ministères préfet yi préfet nit ñi xamul seen gëdd mais préfet yi ak sous-préfet yi ak gouverneur surtout les préfets et les sous-préfets ñoom ñooy liggéey ce qu'on appelle le suivi des affaires municipales suivi des affaires municipales mooy relater jafe-jafe yi askan wi moo daan yéeg ba primature su yéegee primature ñu tas ko mu ñëw version territoriale ñu liggéey en version ministérielle liggéey naa ko pendant trois ans bu ko defee ministère yi jot problématique yi nga xamante nii moo am ci collectivité yi problème yooyu moom la ministère technicien di jël pour tëgg ci li nga xam ne la planification année bi ñëw planification yi nag ci la sukkandiku pour budgétiser te loolu bu xasee ñëw président la république rek souvent moom mooy am prérogative ak possibilité ne tel projet tel projet nañ ko annulé defal tel projet mu ñëw à la primature les conseils réunis ci waxtaan yi defal ko fiche xool ni muy tëddee présenté premier ministre bu ñu demee ba au mois de juin ñu mën a un projet de loi rectificative buy permettre changement yi njiitu réew mi joxe nañ bàyyi tel projet def tel projet ñu mën a ajuster pour mën a dem sur de nouvelles bases kon ministres yi seen marge de manœuvre ci les projets de l'État yi ñuy porté bariwul lool kon nag ñu xam ne kon dëkk du poste de responsabilité moo xam ne donc poste de responsabilité doon def Ibrahima Gueye yàlla na ko yàlla dolli leer nekk na ministre de la jeunesse est-ce que kon nag ñu xamee ko noonu ñu xam ne dëkk ña fa dëkk ñoo koy defar avec volonté ak xam-xam ak détermination donc ak euh, bëgg dëkk boobu aussi c'est important jërëjëf jërëjëf monsieur le maire ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant kon mbokk yi jotaay bàngook muy waxtu yaatu woo xam ne monsieur le maire de la commune de Mbacké Cheikh Abdou Mbacké Ndao mayoon nañu ko ci waxtoom ñu àndoon ko ak ñetti rajo wala ñeenti rajo euh, Walfajri Salam FM Zik FM ak i rajo waaye itam àndoon ko ak euh, association des professionnels de la presse en ligne euh, du Bawol muy appel B ñu leen di gërëm bu baax ci seen disponibilité di gërëm mboolem équipe technique bi nga xam ne aussi moom la ñu àndaloon ci réussite jotaay bi itam ñoo ngi leen ci gërëm bu baax a baax ak mboolem euh, journaliste yi nga xam ne aussi ñoo doon jàpp ci question yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm kon mbokk yi jërë ngeen jëf jotaay baa ngi noonu di gërëm monsieur le maire ci disponibilité am waaye itam di ñaan ñu dem ci élection yi ci dal ak jàmm te génn ci ci dal ak jàmm que le meilleur gagne Al 2022 ci département de Mbacké l'association des professionnels de la presse en ligne du Baol indi initiative bu am solo fa seeni ci ànd ak mboolem candidat toutes les coalitions toutes les listes mu doon municipal wala départemental jàpp leen seeni ay plateau ay émission ay direct ci conseil bi ñu duppee tànneefu askan wi mbokk mën ngaa gaaw saisir bi les opportunités moo lay may visibilité yi nga ci ànd ak ñun ak ay moyen technique yu xarala ngay am en direct sur plus de vingt sites internet mais après le direct di nga am intégralité émission bi bu ngeen amatee ay caravane ngeen am ay proximité ay porte à porte ngeen def déclaration saisissez cette opportunité ndaxte moo leen di yembal fa ngeen bëgg seen message àgg fa mu àgg fa si li mu gën gaaw a gaaw ànd si ak ay professionnel si mbooleem wàll lépp lu ngeen ittewooti si wàllu wu ni mel couverture médiatique appel ba jóg taxaw tem ngir ànd seeg yéen bu ngeen si bëggee ay renseignements mën ngeen contacter numéro yii di défilé ak sunu service commercial local 2022 si département de Mbacké appel ba da see soobu ba jeex ngir gindi askan wi mais également gunge candidat yi. élection locale 2022 ci département de Mbacké l'association des professionnels de la presse en ligne du Baol indi initiative bu am solo fa seeni ci ànd ak mboolem candidat toutes les coalitions toutes les listes mu doon municipal wala départemental jàpp leen seeni ay plateau ay émissions ay direct ci concept bi ñu duppee tànneefu askan wi mbokk mën ngaa gaaw saisir bi les